أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu ak di leen ndokkeel ci weer wu màgg wi nu nekk mooy shahrullahi al muharram bismillah xam ngeen ne tey dañu waroon tafsir waaye ñu gis ne mbokk yi wax ne keroog bu ñu defee mardi ci muharram ñu waxoon ñu ñu yokk leen a leeralal ngëneel ak ay taxaw seetlu yu ñu war a def ci muharram ñu waxoon leen kon tey ñu bañ a def dars ci tafsir bi mais ñu defal leen salaasuna waqfa ma ashura fanweeri tomb yoo xam ne ab julit war na ko taxaw ci tamxarit salaasuna waqfa ma ashura fanweeri mbir yoo xam ne jullit bi waru koo romb rek war na ci taxaw benn bu nekk tomb bu ci nekk mu déglu ko dégg ko càmbar ko xam ndeke asura mooy lan ndax mu wuuteeg ñun fii nu nu déggee tam xarit ndax fi mu nekk nii ñu bari ci ñun ñu ngi waaj jëndi ginaar ñi jëndi nag def ay cere bu fekkee sunuy gone ñu ngi foori tabala ak yi ndënd yu ñu tëgg maanaa jàpp nañ ne tamxarit caaxaan la fekk ay bés la yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala def ko fonk kon ixwaan yi xam ngeen ne xeetu lislaam ci guddi yi nu nekk mu ngi dund ay bés ay weer ay fan yoo xam ne yu màgg la te mooy bésu tamxarit bésu muharram bés yoo xam ne bés yu màgg la yu koy delloo ci xeet yu njëkk ya yu paase naka lañ doon dundee asura waaw moo tax ñu bëgg fàttali fanweeri tomb yi diggante waxtu yiñ fi def ndax kenn ku nekk ci ñun mu am lu mu ci dolleeku waaye mu am lu mu ci jëriñoo su fekkee ne ñëw nañ ci tomb bu njëkk bi mooy yowmu asura xadasu taarixi fi xayaati albashariya wa nuqtatu taxawul في الحرب الإيمان مع الكفر ولذلك كانت حتى الأمة الجاهلية تصومه كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرداها أن قريسا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية متفق عليه بسو تمخريت بسو استوار لا لو استوار بند لا depuis jamono yu njëkk ya ba fii nu nekk néew na yonent bu jàll ci jamono ñëw ci kaw suuf te màggalul bisu asura muy bisu tamxarit néew na waaye dafa nekk tomb boo xam ne xeex daf cee am diggante ngëm ak kéeféer ñi gëm yàlla ak yéeféer yi dañoo xeex bisu tamxarit dañu yàgg di xeex di daje bisu tamxarit di xeex loolu moo tax même xeet yi nga xam ne ay jaahil lañu woon ay ceddo nga xam ne seeni yonent day paase bàyyi leen ginnaaw ñu delluwaat nekk ay ceddo waaye bis yooyu bu ñëwee dañ ciy delluwaat ginnaaw dañuy màggal bis bi loolu yaay Aïcha nettali nañ ko ci xadis bu mu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na même waa Quraysh dañ daan woor bisu asura ca ceddo ga même waa Quraysh nga xam ne boobu amuñu yonent ci ceddo ga lañ nekk ci jaahiliya mais terewul ñoom dañ daan màggal bisu tamxarit loolu mooy tomb bu njëkk ñaareel mooy yowmu asura rabtun bayna ahlul iman baaduhum bi baad walaw ixtalafa al ansaab wal alaab bal wal azma bisu tamxarit dafa lënkale diggante ñi gëm yàlla ñëpp yeewu yeewu leen yeewu leen jàppalante leen loolu moo tax yonente alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee maag bi mu ñëwee Médine mu gis yahuud yi di woor bisu tamxarit mu ne leen lan moo tax ngeen koy woor ñu ne ko ñun dey dañu ci sant yàlla ndax yàlla moo ci labaloon sunu noonu daat ci muccal sunu bi yonent ñu ànd ak moom muy Muusa yonent bi ne leen man maa leen gën a yey ci Muusa gis nga kon lëkkale na diggante yonent yàlla Muhammad ak yonent yàlla Muusa kon tamxarit bis la boo xam ne weeru tamxarit dafay lënkale di boole way gëm yàlla yi donte ne seen askan dafa wuute yonent bi ab arab la Muusa lan la ah ab ab yahud ci ci ci xeet mais terewul yonent bi alayhi salaatu salaam fekki na ko ci ngëm ndax nee na ñoom ñaar ñoo bokk te seen xeet dafa wuute waaye ansaab wal al wal luxaat ak làkk yi ñoom ñaari xeet yooyu bokkuñu lu ñuy làkk mais terewul gis nga yonent bi fekki na leen waaye jamono bokkuñu ñett bokkuñu xeet bokkuñu làkk waaye bokkuñu jamono mais terewul yonent fekki na leen kon ndeke bisu tam xarit dafa war a boole way gëm yàlla yi waaye waru leen a tàqale xoolal ñun fi mu nekk nii dañoo tàqalikoo ci tam ci tam xarit bi ñenn ñi lan la ñuy woor lundi dimanche ak lundi ñenn ñi woor lan lundi ak mardi dañoo tàqalikoo te waruñu tàqalikoo mu ne fa aslu irtibaatu Muusa wa man maahu min almuminin summa imtaddat li kulli man sharakahum min al iman mu ne mbir maa ngi déparé ci yonent yàlla Muusa mu woor ñi mu àndaloon woor muy dem muy dem ba mu fekk si ñun ñii kon gis nga nit ñu boolee mu mel na ñun dañ cee bokk fekk ñun lan ñoo ñu fa yóbbu mooy ngëm gi ñu bokk ak yonent yàlla Muusa ndeke kon asura dafay boole way gëm yàlla yi loolu mooy ñaareelu toog ñetteel mooy yu rabbi fi qulubil muminina almahabba baynahum wa wahada lahum fa bi siyaamihi yatazakkaru l insan zalika alhadas altaarixi allazi marra ala ixwanihi fi ddin maa Muusa alayhi salaam mu ne ñetteelu tomb mooy bisu asura dafay yar ci xol yi xoy wal way gëm yàlla yi mbëggeel boo xamante ne mbëggeel boobu moo leen di boole gis ngeen asura lum ñu war a jural mooy ñun ñi nga xam ne dañoo bokk diine nekk way gëm yàlla asura lum nu war a jural mooy ñu bëggante ndax ci woor weeru koor ci la doomu aadama di fàttalikoo histoire bu màgg boobu xewoon ci say mbokki jullit yoo xam ne ñu ngi àndoon ak Muusa fi mu nekk lu tax koo laaj koo fekk mu woor suba wala ginnaaw suba nga ne ko lu tax nga woor lu mu lay wax tey la bisu asura tey la bisu tamxarit nga ne ko waaw lan moo xewoon ci tamxarit ba mu koy woor mu daal lay nettali xew-xew bu màgg boobu kon ndeke mbëggeel la ñu war a jural ñun ñi nga xam ne dañoo bokk diine bokk yàlla bokk yonent nee na asura dafa war a tax ñu bëggante ndax ci woor giñ koy woor la ñuy fàttali xew-xew bu màgg boobu nga xam ne moo xewoon ci Muusa ak ay mbokkam ci xeex gu nga xam ne àndoon nañ di leen ko xeex Firawna doon leen ko xeex ak ay mbokkam Firawna ànd ak benn camp bi ñoom ñëpp ñu nekk ay yéeféer Muusa ànd ak benn camp bi ñoom ñëpp ñu nekk ay jullit mbooloo yéeféer yi ëpp doole di noggatu mbooloom jullit yi ñeenteel mooy yowmul asura yadullu ala anna al anbiya baaduhum awla bi baad bisu tamxarit dafay wane ne yonent yi ñenn yi ñoo gën a yey ci seen moroom bisu asura dafay wane ne lenn ci ay yonent ñoom ñoo yay mbokkoo waa kon yonent yi bu ñu mbokkoowee ñun ñi nga xam ne ñoo topp yonent yi kon ñu nun noo leen war def kon dañoo war a mbokkoo kama fi riwaya anna anna awla bi Musa ana awla bi Musa nee na comme ñim ñëwee ci hadis bi yonent bi saa sallam bi mu laajee waa yahudi Médine donte ne jamono bi leen yonent yàlla Muhammad di laaj boobu est ce que fekk na fi yonent yàlla Musa ah fekk na def waaye bi mu leen ne yéen lan moo tax ngeen di woor rek ñoom lan lañ ko tont ñun kat dañuy sant yàlla mu ne leen lan maa leen gën a yey ci Musa baatu maa leen gën a yey ci Musa lan lay tekki mooy Musa jullit la man jullit laa te yéen ay yahud ngeen yéen la fi Musa indi woon bàyyi ngeen ko bu yàgg kon yéen bu ngeen di màggal yonent yàlla Musa man maa leen gën a yey ci Musa ndax maa Musa ñoo bokk borom ñoo bokk diine moo tax mu daal di koy woor mu ne wa haadihi lwalaaya la tahaaduhum fi diini wa risala mu ne far googu yonent yàlla Muhammad farak yonent yàlla Musa nee na lan moo ko jur mooy diine ak bokk yonent benn ñoo bokk benn diine léeg-léeg ci ñun nga gis benn waaye mu ne yàlla ñetti diine la am yàlla nga dégg ko ci ci waxtaan yi benn waaye bu làmmiñam tarxiis wala ñàkk xamam mu ne yàlla ñetti diine la am soo ko noonu ñetti diine yooyu wan ak ban la mu ne la yahudiya nasaraaniya ak islam fekk yàlla amul diine bu tudd yahud yàlla amul tudd diine bu tudd nasaraan inna diin inda allah yàlla benn diine la am mooy lislaam aadama moo ci njëkk a woote yonent yàlla muhammad moo ko tëj mboolem yonent yi ci lislaam lay woote amul yonent bu musa woote ci yahud amul yonent bu musa woote ci nasaraan ñoom ñëpp ci islaam lañ indi kon benn diine dong dong dong la yàlla am ci kaw suuf amul ñaar amul ñett diine jooju nag moom la yonent yàlla muhammad bokk ak yonent yàlla musa yonent bi bi muy joxe misaal ci wane ne diine yëpp yonent yëpp benn diine lañu indi dafa yox benn kër mais yonent yi dañ doon ñëw di tabax di tabax kër googu tudd islaam bi ñu tabaxee ba pare pen raax peinture defar finition yi ba mu jeex mu ne kër gi am na benn place boo xam ne dañ ko faa bàyyi benn brique bu ñu waroon def mu ne kër gi li tax rafetut ku ñëw rek day xool mu ne waaw mais brique bi manqué fi maçon bi lu tax defu ko fi ñu ne ñun kay loolu moo ñu jaaxal mu naa kër gi li muy rafet rafet peinture bi li muy rafet rafet finition yi li muy rafet brique boobu ñu bàyyi foofu moo tax mu manqué ku ñëw rek dootoo dootoo naw kër gi yonent bi nee na man maay brique boobu man maay brique bi maanaam bu ñu ma fa dugalee rek kër gi rafet kon yonent yëpp ñoom ñoo bokk li ñu indi moo tax asura daf lay fàttali ne mbooleem yonent yi ñoo gën a yey ci seeni moroom loolu fan lay feeñ mooy ci seen diine ak yonent yi yàlla yónni gim leen yónni juróomeel mooy siyaamu asura yadullu ala anna hadihi l umma awla bi anbiyai l umam assaabiq min qawmihim mbokk yi woor bisu asura lan lay tekki ci ñun jullit yi mooy ñun ñii xeet wii di xeetu lislaam ñun ñoo gën a yey yeneen xeet yi ci seeni yonent ñun ñoo gën a yey ñi àndoon ak Ibrahim ci Ibrahim ñun ñoo gën a yey ñi àndoon ak Moussa ci Moussa ñun ñoo gën a yey ñi àndoon ak Nuux ci Nuux ñun ñoo gën a yey ñi àndoon ak Isa ci Isa loolu moo tax bañ ko comprendre doo gis benn jullit bu weddi yonent yàlla Nuux doo gis benn jullit bu weddi yonent yàlla Ibrahim doo gis benn jullit bu weddi Moussa doo gis benn jullit bu weddi bal ñun ñëpp lañ boole laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli ñun ñëpp lañ gëm soo ñëwee ci penc jullit yi ci biir kër yi ci société yi nga fekk fa Moussa fekk fa Nuux fekk fa mbooleem yonent bu yàlla yónni ab jullit tuddee na ko turandoo kon ñun ñoo gën a yey ci ñoom ci seeni nit seeni nit yooyu nga xam ne ñoom dañ leen weddi woon kazabuhum da ngay gis yonent yàlla Moussa ñan ñoo ko weddi woon yahud yi dañ ko weddi bal yemuñ ci weddi sax dañ ko tuumaal xas ko xas bu rëy ne dafa xuuxaan yonent yàlla Isa gis ngeen dañ ko jàpp ne dañ ko rey yàlla weddi leen ne leen reyu leen ko Suleymaan gis ngeen Yahya dañ ko rey ak Zakariya kon nag ñun ñi ñoo gën a yey yeneen yonent yi yeneen nit ñi ci seeni yonent mu ne mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na loolu ci xadis boo xam ne mu ngi ci buxaari ak muslim mu ne antum axaqu bi muusa minhum yéen ñii yéen a gën a yey yahuud yi ci muusa yéen ñii bu yonent bi ne antum damir bi ci ñan lay dellu ci jullit ñi antum axaqu bi muusa yéen yéen a gën a yey muusa minhum ci ñoom ñoom ñan ñoom yahudi mu ne wa haza min mumayazati al umma al muhammadiya nee na lii ràññee la ak xéewal la bu yàlla defal xeetu yonent yàlla muhammad ñu ànd ak yonent bi ba pare gën a yey yeneen nit ñi ci seeni yonent moo tax yowmal qiyaam ñun ñooy seede yeneen xeet yi bu yeneen xeet yi ñëwee yonent yi taxawee wax seeni nit ñi di weddi naan déedéet yàlla ñun kat sunu yonent yi waxuñu woon dara xam ngeen ñan la yàlla di woo pour ñu leeral diggante bi àtte ah xeetu muhammad loolu alquran la di wala ban aaya la li takunu suhada ala nnas wa yakunu rasulu alaykum shahida ñun bu ñu seedee yeneen xeet yi ba pare ba yàlla àtte leen yàlla nag yéen nag kaay leen yéen nag xam ngeen kan moo leen di seede muhammad ñun ñooy seede ñeneen ñii ñun muhammad seede ñu gis ngeen ñun lan la tax ñu mën a seede yeneen xeet yi parce que alquran nettali nañu yeneen yonent yi fu ñu jaar ak seeni xeet ci caay-caay ak dëgër bopp ñi ci gëmoon ñan la ñu weddi woon ñan la ñun mën nañu seede mboolem yonent bu yàlla yónni xeetu muhammad mën na leen a ñaata yonent la yàlla wax ci alquran 25 yonent yàlla tudd seen tur tàmbali seen xeet ba leen yàlla di yónni xoola aadama bi ko yàlla di bind lépp yàlla wax na ko ci alquran balaa yàlla di bind aadama ah bal sax njabootu aadama ñun mën nañ leen a seede parce que yàlla wax na qaabil ak haabil seen histoire mën nañ leen a seede tey bu ñu wowoon benn julit bu ko jàng dégg ko suñ ko nee seede leen ñoom ñaar ñi ku tooñ kan ngay wax parce que yàlla wax na la ko diggante nu ak ay mbokkam diggante ibrahim ak ay mbokkam ibrahima ak fir moussa ak firawna kan moo leen mënul seede ci ñun yàlla nettali na la ko ba mu leer diggante ibrahim ak namruz yàlla nettali na la ko ba mu leer diggante isa ak ñane rey nañ ko christifié nañ ko te yàlla weddi loolu lépp kon yonent bi alayhi salatu wasalaam li mu wax nee na haza mumayyiz al umma al muhammadiya inda allah wa lidhalika yakunu suhda ala tablighi al anbiya diinahum yawma al qiyama ñun jullit yi ñun ñooy seede yeneen xeet yi yowmal qiyaama ndax wax na yàlla tabaraka wa taala kat yónni na yonent yooyu yonent yi daal di ñëw daal di jottali la leen yàlla yónni woon ñoom ñëpp seen diine yonent yi leeral nañ ko ba mu leer loolu yàlla waxuñu ko ci alquran loolu ngëneel la bu màgg ci ñun ñun ñu mujjee ñëw ci xeet yi ba pare di seedewaat yeneen xeet yi juróom-benneelu tomb mooy yowmu asura yu rabbil muslim alal uxwa ad diin faqat mbokk yi bisu asura dafay yar jullit ki mu gën a dundal mbokkoom ci diine ak ku mu mën a bokkal diine bu nu déggoon diine danañ xam ne bisu asura bis la goo xam ne dafay dundal mbokk gi dafay dundal nekk benn ci islaam looloo tax wa lizalika qaala sallallahu alayhi wa sallam antum ahaqu bi Musa minhum loolu moo tax yonent bi ne yéen yéen a gën a yey Musa ci ñoom wa zalika illa li ribaatu diin allati baynana wa illa fa ahlul kitab aqrabu li Musa mbokk yi ahlul kitab ak Musa ak ñun ak Musa ñan ñoo gën a jege ci ci mbokk ahlul kitab ahlu kitaab ñoo ñu gën a jege Moussa ndax Moussa ci ñoom la bàyyeekoo seen doom la seen borom kër la seen mag la seen nijaay la seen lépp la tax moo ñoom ñoo bokk deret waaye lan moo tax yàlla ne leen fa ñukk daan ne yéen jullit ñi yéen a gën a jege Moussa ak waa ahlu kitaab lu tax loolu diine lislaam loolu fan nga koy jànge mooy ci histoire Bilal Bilal ak Abu Lahab wala abu jahlin bilaal lan la bokk ak yonent diine bokkuñu deret bokkuñu couleur yaram bokkuñu dëkk bokkuñu làkk waaye bal rafaahullah yàlla yëkkati na bilaal ba bilaal di dund ay tànkam di yëngatu aljanna abu jahlin lan la bokk ak yonent baayam la yàlla daaneel ko ba safara la la la fa lay yendu fa lay fanaan la waral loolu diine kon du diine mooy tax nit kawe waaye du du yaram du alal du ay yax du du askan bilaal bi mu yéegee ci kaaba gi noot dafa am benn arab ci jamono yooyu koo xam ne ceddo la tuubagul mu gis bilaal ci kaw kaaba gi rek mu ne yii maa ngi sant yàlla ba sama maam fekkewul baaxoñ bu ñuul bi ci kaw kaaba gi di noot rek alxuraan daal di wàcc yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allah ndeke du xeet bi du yaram bi du deret bi bal lan la diine yàlla diine lay xool yàlla xoolul deret xoolul foo bokk xoolul sant tey fii ci Sénégal ñun lu ñuy xool ay sant ay kër ah ay sant ay foo bokk kii de nangam ak nangam di nga gis benn waay boo xam ne du dem jàkk kenn mus ko gis jàkk waaye dafa am benn sant nga gis kii ci jàkk ji la dëkk gars yi ki dul dem jàkk la ñuy gën a fonk ak waa ji di dem jàkk lu tax parce que ñàkk dégg diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen gisee nit muy baamu jàkk yi di def vaye vient lan la wax mu ne fashhadu lahu bil iman seedal leen ko ngëm mu ngoog kon ngëm googu moo ñu yeew ak Muusa du deret du lenn yow mu asura juróom-ñaareel mooy tazkir li ahlil ard amma bi nasri bi nusratillah li awliyaihi bisu asura bu ñuy xëy di ko woor lan la ñu war a jural mooy ñu fàttaliku ndam ndam fàttaliku victoire bu yàlla mayoon ay ñoñam ndeke bisu asura bisu sant yàlla la bisu fàttaliku ndimbal bu yàlla joxoon yonent yàlla Muusa te jamono yooyu di ko yàlla di ko defal dafa mel ne comme tey mbokk yi xool leen Firawna ni mu tolloon Firawna gouverné woon gouverné wul woon Égypte kese de bal àddina bi la gouverné woon am doole joo xam ne ñépp a ko ragal du hasard yàlla di tudd turu Firawna ci alquran ñaata yoon la ñaata aaya la yàlla tudd firawna baxara ba baxara ba yàlla day tudd firawna ba fan ah ah nazaaj dangaa bëgg a bàyyi fi wal fajri xoolal lool rek yàlla di ko tudd ndax bandi bu mu bandi woon saay-saay bu mu saay-saay muy xeex ak peuple boo xam ne amuñu dara amuñu ngànnaay ay jaam la leen defoon fan la ko yàlla dugal ci biir géej nëkk ko ñooñu am connaissance reconnaître yàlla xéewal bu mu leen doon defal ñooñu ba ñu xëyee tëgguñu ay tabala de di yuuxu ci mbedd yi di zibilé comme ñun niñ koy defee bu ñu amee xéewal lu ñuy def ci mbedd yi la ñuy nekk di yuux di yuux wala ah bal ñoom dañoo xëy ndeysaan daal di woor di sant yàlla kon bisu tamxarit lan la ñuy jural mooy ñu fàttaliku ndam googu yàlla defaloon yonent yàlla Muusa xolal tazkir li ahlil ard waa kaw suuf yëpp la ko war a fàttali amma ñoom ñëpp bi xasimatillahi li aadaayi yàlla dafa gañe ay noonam noonu yàlla yi mooy ñan mooy firawna ak ay mbokkam ak ñu demee ne ñoom loolu lan lay jur mu ne wa haza yujaddidu fi nufuusil al amal wa yabasu atafaul loolu ndeysaan daf lay jural daf lay jural confiance gis ngeen tey ci kaw suuf nit ñi lislaam la ñuy bañ a dégg sànq benn maire dafa ne monsieur waaw ñooñu nekk ñooñu ñu naan dañoo bëgg a tëral dawla islamique ñooñu sonal nañ nit ñi de waaw parce que information yi ñuy joxe xoolal information buñ mujj a joxe tey ci Boko Haram ñu ne jigéen ñooñu ñu jàppoon tuubloo nañ ñëpp maa ñooñu ñëpp tuub nañ maye nañ leen Pakistan ñu ne benn bombe éclaté na nangamu ni dee nañ ñu ne fële maanaam tey boo dégloo lislaam ci kaw suuf da nga naan ii nekk is nekk jullit musiba la nekk jullit baaxul ndax comme ñoom ñoo ñoom ñoo moom média yi nit ñi terroriser jullit yi waaye xew-xew yu mel nii mooy tax ab jullit moom day am confiance xeex bi li muy métti métti métti métti métti lislaam mooy am ndam day métti rek lu tax mooy diine ji yàlla moo ko yore diine ji nekkul ci loxo mbindeef sama benn oustaz bu mag génn na àdduna yal na ko yàlla yërëm daf ma doon wax bu ma duggee ci kaaba gi rek ma wéeru ñu nodd allahu akbar allahu akbar mu ne abu jahlin fen na de mu ne abu jahlin fen na de lu tax abu jahlin fen na mu ne lii la doon bañ mu daal di jóg mu ne mbir mi jóg na ba passé màkk maanaam baat boobu la doon bañ mu jóg tey baat boobu tasaaroo na ci àdduna baat bi moo tere woon nelaw abu jahlin mu xar tànk tubéyam xeex ko xeex ko ay at ba génn àdduna ana baat bi ah américains yi tamit dañoo war a toog ak seeni mbokk baat bi kenn mënu ko téye ku mënul téye jant bi mënoo téye lislaam ku mënul téye jant bi mënoo téye lislaam benn benn borom xam-xam bu mag laa dajal ci kaaba gi ñu toog di waxtaan mu may nettali ci gaa yi ni ñuy duggee ci àddina bi di def nit ñi ay jël julli di leen def ay yéeféer di leen jox alal mu ne dafa am benn dëkk mu tuddoon ma dëkk bi mu ne gaa yi dañ faa dem yore alal financé waa dëkk bi yëpp lu ñu bëgg rek gaa yi daal di koy def lu ñu bëgg gaa yi def ko dara desul nag lu léegi ñoom jàpp jàpp nañ ne ñii léegi alhamdulilah ñu ne leen waa léegi nag kaay leen ngeen waa dëkk bi génn ñu ne dañ leen di laaj léegi lan ngeen bëgg lu des gaa yi ne ko ngeen ngeen utal ñu ay billets ñu aju màkk ñu ne moo ñi koy nekke ñi koy nekke fañ nekkoon lañ nekk wala ñoom dañoo yaakaar ne buñ nee ne lu des ñooñu ñu ne ngeen tabaxal ñu église ñooñu ne biñ leen ne lu des ñu ne ngeen may ñu xaas rek ñu aji màkk ñun ñëpp ñu daal di découragé ñoom ñëpp ñu découragé ndeke ñoom liñ liggéeyoon ay at yëpp pënd ak poussière la ko yàlla def gis nga kon ndeke lislaam yàlla moo ko yore lislaam yàlla moo koy aar waaye du ay nit lii nag daf ñuy fàttali bisu asura daf ñuy fàttali ne yàlla tabaraka wa taala dafa indi ndimbalam ci jullit ñi mbokk jullit yi bisu asura aussi daf ñuy fàttali mooy neuvième tomb bi yowmu asura dalilun ala tanawwai nasri bi nisbati lil muslimin bisu asura daf ñuy fàttali ne maanaam ndimbali yàlla di ndimbali ndimbali dafa wuute du tey rek mu labal firawna loolu rek la mën ndimbali façon yi yàlla ndimbal bi muy dimbali julli ñi dafa wuute tey façon bi lay joxe suba mu joxe façon bee ba muy ba muy ba muy alak Namruud labalu ko ci géej benn yoo la ko booleel yoo bi muy mbugal Abu Jahlin labalu ko ci géej bi muy mbugal Qaaruun labalu ko ci géej maanaam suuf si moo ko won Namrud mu boole koog yoo Abu Jahlin mu boole koog xale yi ñu dagg baat bi Firawna mu labal ko ci géej maanaam yàlla loolu lay def façon bi dañoo wuute ni muy dimbalee jullit ni ndimbalam dafa wuute ci jullit yi mu ne faqat laa yakunu nasru ala al aada bi hazima wal ganima minhum mu ne mun naa nekk ndimbal bi yàlla di dimbali jullit ñi ñuy gañe yéeféer yi mun naa bañ a nekk sax ci luy feeñ nii mu daal di jàpp seen noon labal ko déedéet wala ñu daal di jullit ñi daal di dem jël seen alal déedéet bal ahyaanan yakunu nasru alayhim bi xilaakihim wa kifayati almuslimin charruhum kama hadasa ma Musa yenn saa yi yàlla tabaraka wa taala dafay yëg am na yonent yonent yàlla saalix dafa am ñu ko fanaanul guddi ne dañ koy rey ñooñu nan lañ ko fanaanoo dañoo reeñoo ne saalix mi daf ñu sonal nañ ko rey ñu noppalu ñu ne d'accord nañ ñu ne waaye buñ ko rey dañuy fexe ba waa dëkk bi bu ñu xam ne ñun ñoo ko rey kon lu ñuy def ñu ne dañuy tàggoo ba cëg jënd suñu bagage tàggu ne ñun dañuy tukki dugg ci dëkk bi yëpp dañuy tukki ba ñëpp xam ne ñun ñii dañuy tukki ñu génn dëkk bi buñ demee am na benn xunt benn pax bu xóot bu nekk ci buntu dëkk bi ci biir dëkk bi ñu fanaan fa bu guddee ñu ñëw rey ko daal di daw duggaat ci àll bi daal di dem léegi nag bu dee bu ñu bu nit ñi yeewoo ba yëg ne dee na ñun ñu ñibbisi buñ naan ñan ñoo ko rey ñan la ñuy wax ñun moom kenn duñ ci boole ndax dañ naan bañ koy rey ñun nekkuñu fi ñu daan dajale seen i bagages yenu seen i saak waaw ni booy yi di def takk seen i saak ci seen i dënn waaw takk seen i jëngal takk seen i montante dugg ci dëkk bi ñun de dañuy tukki dañuy tukki dañuy tukki bu ñëpp ne da ngeen dem waa dem leen te ñëw ak jàmm ñaanal leen ñu daal di dem ba ci xeer ba daal di dugg di xaar guddi jot pour ñu génn rey yonent ba yàlla daaneel xeer bi seen kaw ñoom ñoom moo tax yàlla mu ne wa makaru makara wa makar naa makaran wa hum laa yashurun allahu akbar bat bu garaaw a ngi noonu fexe nañ seen fexe mooy lan dañuy rey yonent bi yàlla mu ne man mbir mi fexe naa ko bu yàgg waaye ñoom yëguñu lan moo nar a di xew ci ñoom ñoom ñi nga yaakaar ne bu duggee ci xeer ba ñu génn yàlla nee na ñoom lay xaar bu ñu yegsee rek ma daane ko seen kaw ba fi may wax ak yow génnuñu ana kañ bëggoon rey yàlla na li ko yàlla yónni woon bu yàgg ñoom ñoo nga fa ca biir xeer ba yow man xiyaam foofu la ñuy dégg ba gis nga fexe doomu aadama ndeke yenn saa yi nga toog fii am benn waay bu lay fexeel yëgoo ko yàlla rey wala yàlla teg ci moom dara fekk doo ko yëg am na benn borom xam bu mag parcelle dañoo woo benn benn bu xaaba benn sëriñ ci sëriñ xalifa yu mag yi dafa woo benn waay benn bu xaaba bu mag ne ko damaa bëgg nga reyal ma oustaz diw nga reyal ma ko na nga ko rey boo ko reyee ma fay la avancement ngi nii mu ne ko temps nga may jox mën na nekk 2 millions mën na nekk mu daal di koy jox 1 million avance pour ñu rey ko waa ji daal dem guddi commencé jël ay affaire am waa ji dafa am benn këll këll bi bu defee li muy def ba dugal ci turu nit ki rek ku mu ci dugal sa tur bu ci fanaanee wërsate da ngay dee sëriñ bi daal di jël këll gi def ci li muy def dugal ci turu waa ji guddi jot rek waa ji fi mu tëdd di nelaw bu xaaba bi mu gént benn ponkal wàcc kaw asamaan bi ñëw daal di koy poñe jëkk ci kaw ci kaw naka yow dégg naa dañ laa yónni pour nga ri pour nga rey diw ah maa ngi lay yégal ne boo ko bàyyiwul gis na su ma ñëwaatee fii kaay sax ma woon la nu ma lay def waa ji daal di génn ak moom yóbbu ko ba ci géeju parcelle bi mu ngi ko poñe noonu de ci benn loxo nëkk ko ci géej gi ba mu egg si fii mu ne ko gis nga boo ko bàyyil mu ñëwaatee bu ma la dugalee du ma la bàyyi lu dul dangaa dee dégg nga li ma la wax daal di koy génne daal di koy tëralaat ci kaw lal gi rek waa ji daal di tiit yeewu bu xaaba bi tiit yeewu bu mu yeewoo mu xool mu ngi ci kaw lalam mu sant yàlla mu ne mu xool këll gi këll gi këll gi mu defoon liggéey bi gisul këll gi mu tiit mu ne bu waaye bu fajar bu mu jullee mu yor kurusam mu jaar ci yoon bi jëm mu xooli géej gi ko waa ji dugal mu ne muy dem ci yoon bi mu gis ay taalibe yu doon yelwaan yor këll gi di ko foyee ay taalibe yu doon yelwaan yor këll gi di ko foyee mu laaj leen fan ngeen ko foree booy yi de tefesu géej mu xool géej gi xam ne fii la ko waa ji nu xool ci guddi gi mu daal di ñibbi yu ñibbee ba mu am ay fan mu sol ay daalam dem ci borom xam-xam boobu mu ne ko damaa ñëw pour baaw laax ma bëgg nga baal maax mu ne ko ah lan la mu ne ko kenn ci xalifa yi moo ko turam moo ma fayoon nangam xaalis pour ma rey la ndax man damaa fooroon ci jabar ku ma mësa def rek dee nga léegi nag damaa ñëw yow moom di yem naa laa kii daal di koy wax fi mu jaar waa ji ne ko du ma la baal de lu dul sart du ma la baal lu dul ci sart mu ne ko sart boobu lan la mu ne ko nga tuub bàyyi njabar ma baal la boo tuubul duma la baal paa bi daal di tuub daal di bàyyi génn àdduna dégg naa mais bala muy génn àdduna dégg naa mokkal na lu alxuraan ci lu bare bare bare noonu la tuubee kon gis nga yàlla yenn saa yi mu fegal ab jaamam lu waroon ñëw ci moom fekk xamu ko fekk yàlla fegal na ko ndeke yenn saa yi ndimbalu yàlla bu question rek mu rey sa noon bi nga koy gis nga jàkkaarloog moom mais yenn saa yi mu fegal la ay mbir yoo xam ne mu ngi doon ñëw ci yow te yow xamoo ko mbokk yi yowmu asura taakid ala wujub mukhalafa hadiyul mushrikin hatta fi ibada wa yadullu al mukhalafa ma yali mbokk yi bisu asura dafa war a won ne képp kuy jaamu yàlla danga war a wuutee jaahil yi li ñuy def jaahil yi kuy jaamu yàlla da nga war a wuutee ceddo yi li ñuy jaamoo yàlla xoolal ñun fii bisu tamxarit ñun ci ceddo la ñuy def mbirum ceddo tamxaritu Sénégal tamxaritu ceddo la du tamxaritu diine te tamxarit lu ñu war a julal mooy ñun ñu wuuteeg ñoom ñun bu nu même bu ñu waxul woon yii sax ñu yem rek benn tomb ci tamxarit mooy waruñ cee noos ci la ñu rey waa kër yonent bi yow ngay noos ñu rey waa kër yonent bi ngay noos yow kon yow déggoo asura moo tax mu ne mu xaalafa dañoo war a wuute hadiyul mushrikin mushrikin yi li ñuy def di bokkaale mu ne hatta fil ibada wala bés tam xarit dem jënd nag togg cere góor ñi sol yére yi jigéen jigéen ñi sol yére yi ñu yor ay tabala di tëgg te loolu sax du xale yi nawet da nga ci gis ay burum kër ay magum jëmm di tëgg di yuuxu ñooñu sax jàmm la bal xoolal paa yi ak maire yi bu ñu reeree ba pare lan la ñuy def ay bool ci kër gi lan la ñuy def bool yi dañ koy jal ngandum jalu suuf la ñuy def ci digg kër gi léeg-léeg nga gis kër goo xam ne sax dañ koo karole ñu dem tibb suuf ci benn jal ko ci digg kër gi ba mu ne këj ñu indi bool bi di ko yenu ba ci kaw def bëm jour tam xarit bu ñu reer a pare heure yi da ngay dégg bëm bëm bëm nga defee ne ay kënu la fekk ay boolu cere la ñooñu sax tane nañ bal ñi ci gën a con gën cee dof mooy ñiy teg benn danku cere ci digg bool bi naan néew yi dañuy ñëw di reer néew yi dañuy ñëw di reer ba néew mooy ñëw di lekk danku cere wala ñu ne danku cere boobu boo xëyee suba nga sëlmu ci doo wànneen ci at mi xoola salte googu nga xam ne mbóot yeeg unk yi ci bool bi lañ fanaan nga xëy di ci sa di ci di ci sëlmu mu ñu xëyee suba ut ut tusngal ngeen ku nekk am ngeen tusngal amuloo tusngal fi mu nekk ni tusngal bi may indi woon maa ngi yëpp jeex na saas mbaa indaale nga tusngal ma ni indi naa ko ñu ne may ma ci a loo koy dee damay tusngalu rek waaw wax ma loo koy dee parce que xam nañ déedéet waaye may ma rek boo indee rek may ma waaye xam naa ne loolu lañ koy doyee jour lan asura bu ñu xëyee suba def ko ci seen bëri di xool jant bi luñ lu ñuy doyee jant bi ñu ne Fatmata Bint mooy fóot fóot mooy fóot ay yére Fatmata Bint anamu ana Fatmata Bint ba muy fóot ku dee nu muy fóotee ba pare buy fóot moom du dem sax ci benn appartement bu bu sedd bokk waaye ci jant bi xoolal jant bi nu mu tàngee ñu ne foofu lay fóot fekk xamuñu bu ñuy xool jant bi tàngaay bi mooy changer seen couleur bët yi duñ fa gis nit de ay couleur rek la ñuy gis ay bleu rouge fekk jant bi mooy changé seen bët léegi nag ñu naan dugal na tisi bu bleu nga gis ku ñeme yàlla dugal na bu orange dugal waay waaye Sénégal yi ñëw réer waay yàlla na yàlla gindi loolu mbirum cedd la loolu du diine ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu nañ ko moytandiku lépp luñ ci wax dañ ko war a def ci diine yonent bi moom lenn dong la wax bisu tamxarit luñ ci war a def mooy lan waaw léeg-léeg nga gis ay nit yu dajaloo ci benn kër ah kenn ku ñeme yàlla ñëw di leen wax ay ñaan ñu ciy topp bal dinañ lekk cere di ci boole benn aaya alquran aaya alquran dañ ko bind ci këyit bu ndaw xul naam wa antum daaxiruun ñu bind ko ci dank cere bu def ko ci këyit nga gis waa ji boole ko ak dank bi daal di wan na bu dee tukulóor yi moom dañ naan moo xaaraani wantaa xaar kaaree de ñaamee haa kaaroon mu haaraani wanta haar dégg nga loolu maa lekk leen ba suur ku suurul woon ci an mi dootoo suurati xam nga loolu benn secret bu ndaw moo ci nekk parce que dégg nga fi may waxee ma at mi ku ci suurul woon dootoo suurati loolooy lan mooy at maa ngi jeex beneen at a ngi ñëw léegi tey jii la at bi di jeex te xoolal yëfu ndof gi ñu def foofu bisu asura ñaata fan la ci tam xarit kon bis le premier janvier bi ñëw na bu yàgg premier muharram bi jàll na ñoom yaakaar ne tey la décembre fekk am na 10 jours ñu ne ku suurul woon dootoo suur ba passé la xoola ñoom tamit ndox giñ def ñu ne boo suuroon ci at bi mi ngi mel ne 31 décembre minuit la 1er janvier di ñëw décembre daal di jeex ñu ne boo suuroon ci at bee dootoo suurati wax nañ dëgg fan ngay suurati ci at boobu at bi jeex na beneen at bu bees moo ñëw maanaam loolu la mag ñi daan nax xale yi ndaw yi naan lekk leen ba suur moo taxoon ñu def ay cere def yàpp ne lekk leen ba suur mu xaaraani wontaa xaar nit ñi di rey seen bopp fekk sax at ma yu bëri dañoo yaakaar ne bisu tamxarit moom mooy premier janvier ci l'islam déedéet bisu tamxarit mooy ñaata moom mooy fukkee mooy juróom-ñeenteelu fan bisu tamñarit moom mooy fukkeelu fan bi mooy a taasua ak asura taasua mooy neuvième jour asura mooy fukkeelu fan bi yonent bi nag moom la wax ne woor leen ko woor leen neuvième ak dixième bu ngeen woorul neuvième ak dixième ngeen woor dixième ak onzième dars bi passé mardi maa ngi ko doon wax ren yàlla dafa def soo tàmbalee neuvième dixième da nga koy kole ci ayaamul biit maanaam kon semaine bi yëpp da nga koy woor boo tàmbalee lundi boo tàmbalee dimanche suba yaa ngi koy jeexal kañ samedi nga koy jeexal ndax da nga koy kole ak ayaamul biit su ko defee nga am ñaari bénéfice wala ñetti bénéfice am nga bénéfice woor nga taasuwa ak asura am nga bénéfice woor nga am nga bénéfice woor nga ci muharram semaine ndax yonent ginnaaw weeru koor bi muharram moo ci ëpp lim daan woor gis nga kon ni nga amee bénéfice kon xéewal la goo xam ne dañ ko màng incha allah bi iznillah suba ñu commencé ko bu soobee yàlla dan na yàlla ba pare bu mu nekk pour pour ñun rek ak suñu njaboot wax naa xale yi ndaw ndawaan yi sax nañ leen woor nañ leen jéem a jàppale ñu woor ndax jeudi lay jeex boo wooree dimanche nga woor dimanche bi lundi muy taasoo ak asura nga woor yonent bi lim ne woor leen neuvième jour wala dixième jour wala dixième jour wala onzième jour gis nga kole nga beneen bis bi mu nekk mardi mercredi jeudi vendredi mu nekk ayaamul bi da nga ci dugal ayaamul bi ñetti fan yi la da nga ko cee dugal ñetti fan yi ñetti fan ñetti fan yi ñuy woor ci le 13 la 14 la 15
déedéet ayaamul biir bi ñu def ko mooy ñetti fan yi.
ayamu bi le 13 la. le 13 lay le 13 lay
ok léegi ñu jël tomb bi ba ñu pare foofu mu ne asura daf ñu war a jural ñuy wuuteeg ahlul kitaab ndax yonent saa salaam bi mu ñëwee Màkk bi mu ñëwee Médine dafa wuuteeg nan la wuuteeg ñoom dafa ñëw fekk ñuy woor ñoom benn fan mu ne man dinaa woor ñaari fan ngir wuuteeg ñoom kon ñu tamit dañu war a wuuteeg ñoom ndax yonent saa salaam loolu la wax mu ne amara nabi sallallahu alayhi wa sallam an yasuuma yawman qablahu aw baadahu aw yawman baadahu rawahu ahmad fi musnadihi imam ahmad nee na yonent alayhi salatu wasalaam dafa digle ñu woor neuvième jour ak dixième jour wala dixième jour ak onzième jour kon ndeke ku mu neex mu def ko lool ndax rek wuute ak yahudi ak nasaraan yi bal sax am na riwaaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñoom dañ ciy feetu yéen bu leen ko feetu woor leen ko onzième ci tomb yi mooy man taamala alxadis yowmu asura tabayana lahu anna aslu muxaalafatu almuslimina lilmushrikin amrun mutaqarrir inda sahaba nee na ku digg xadis bi jàng ko càmbar ko bu baax di nga gis ne jullit yi li tax ñuy wuuteeg yahuud yi ak nasaraan yi mbir la moo xam ne dafa sax mbir la moo xam ne mbir mu sax la mu mutaqarrar inda sahaba wa yadullu zalika ala annahum lamma amilu lamma alimu siyaama ahlu kitab gée lay nodd nee na loolu ku ku dégg xadis bi di nga gis ne boo seetloo di nga gis ne cosaan bi tax jullit yi di wuuteeg mushriki ni mooy xadis bi moo ko saxal ba yonent bi yëgee ne dañuy woor bisu asura sël yonent bi ne leen wuute leen ak ñoom te du foofu rek la yonent bi wuuteeg ahlul kitaab de ci yar sikkim dafa ne nasaraan yi dañuy wat sikkim yahuud yi di bàyyi mustaas ak sikkim mu ne yéen wàññi leen naanu yi ngeen bàyyi sikkim yi gis nga fu ñu wute wute nañ encore ci nodd yonent bi dañ ko ne nañ ut jóolóol yi su nodd jotee jóolóol yi mu ne lan loolu nasaraan yi ñoo ko moom gaa yi ne ko ñu ut tuur béjjën mu ne loolu yahudiyee ko moom gis nga ñu daal di indi noot yonent bi ñëw na fekk ñuy feetu dimanche ak samedi yahud yi ñooy feetu samedi nasaraan yi di feetu mu daal di ñëw indi ajjuma ñëw na fekk jigéen bu gisee baax du ñu lekka ndoog moom du ñu naana ndoog moom moom mu daal di ñëw def lan mu ne isnau kullu shay'in illa al jima def leen lépp ba mu des sëy ànd leen ak ñoom fanaanoor ak leen ci kawlal bokk leen ak ñoom lépp def leen lépp ba mu des sëy est-ce que foofu kese la ak fan ci julli ñoom duñ jullee daal yonent bi ne jullee leen daal ak fan xibla fekk na dañuy jullu baytul maqdis mu daal di tourné daal di jublu makkatal mukarram ak fan ci dindi sobe kon gis nga dafa bëri yonent bi lu mu fekk ñoom ñuy def mu daal def leneen bal ñoom sax bi ñu déggee yonent bi di wax loolu dañu ne waaw nit kii kii lan moo ko dal moom lu mu dégg ñun ñu def rek mu def leneen kon ndeke cosaan la asura di ko feddali ne jullit yi dañoo war a wuuteeg yahudi ak nasaraan yi ixwaan yi douzième tomb mooy yow mu asura dalilun ala anna ittixaazul manasib ayadan aadatul lil yahud danañ jàng ci tamxarit ne feet yu bari lu xew nga def ko feet su sa yaay dee feet sa papa dee feet ku juddu feet ah nee na loolu jikkoy yahuud la tey loolu la ñuy def ñun daanaka Sénégal waxuma sax feetu chrétien yeeg feetu nasaraan yi waaye bal sax ci islam bi laa wax dañ cee yokk ay bés yoo xam ne bis bu nekk dañ koy feetu te yonent bi nee na loolu jikko yahud la xoolal yonent bi bu daan feetu bu nar a waroon feetu benn bis la war a feetu bis bi mu gënee àdduna waaye bal da doon woor saxaaba yi ne ko yonent yow gis nañ lënd bu nekk da ngay woor mu ne ci laa judd ñu ne ko lu tax ngay woor alxamis mu ne ci la yàlla di gaaral jëfi jaam ñi damaa bëgg bis boobu bu ñuy gaaral yàlla sama jëf yàlla xool ma fekk damaa woor mu yërëm ma beneen bi mooy jullit ñi bu fekkoon ne dañuy feetu ñu feetu bisu bisu bisu gàddaay ba waaye bal xoolal yooyu yëpp amul ñaari feet rek la jullit yi am mooy tabaskeek korité mooy feetu jullit ñi leneen lépp amul ci diine saxuwaay ne dañ ko war a màggal dañ ko war a feetu amul amul ci diine ah xoolal kii kii yor caabi kaaba gi caabi kaaba gi ko yore semaine bi la génn àdduna bi at bi jeexee la génn àdduna ñooñu kay waroon nañoo wut ay feet bis bu nekk seen kër di feetu rek xam nga loolu ki ki doon yor caabi ja caabi kaaba gi ba fii ma toog ay njabootam ñoo ñu yor caabi ji ki ci mujj barki démb la gaañu bi at bi jeexee ñooñu kay waroon nañu am lu rëy di ko màggal waaye bal boo demee màkk aji sax doo ñooñu da nga leen dul gis da nga dul xam sax seen kër xamoo sax fu ñu dëkk te kat xadis la yonent bi moo ne ñii ñoom ñooy yor caabi kaaba gi ba àddina bi jeex yonent bi nee na kenn du ko foqarti ci ñoom lu dul bandi bandi moo koy foqarti ci ñoom saay-saay kon buur bu fa falu laal ko rek bandi nga moo tax kenn du ko laal ndax yonent bi moo ko jox amaana la bu leen yonent bi jox waa ji semaine bi la génne àdduna ñu teg keneen ki nga xam ne moo tegul ci moom ñu daal di koy jox caabi kaaba gi daal di koy def ci ñaari mbuus daal di ko koy jox mu daal di koy denc loolu ndax am na lu ko gën a rëy ah heure bu doon ñooñu ay sénégalais lañ heure bu nekk kabala yaa ngi tëgg seen buntu kër rëngata dënga ñii ñooy borom kaaba gi rëngata rënga di yuux yal nañu yàlla yërëm mu ne kon yow mu asura dafa war a wax ne manasib feet yi ñuy def nee na dara amu ci wa lizalika ittaxasu yow mu asura id loolu moo tax ñoom gis nga ba yàlla rëccale leen ci Moussa rek Firawna rek ñu daal di woor ñu daal di commencé def ko feet nee na kaana ahlu xaybar yasuumuuna asura waa xaybar dañ doon woo asura wa yattaxisuunahu iidan dañ ko daan jëpp feet wa yalbasuuna nisaahum fii hulihim wa shaaratuhum ah nee na jigéen ñi dañ laan deen solal ay caq ak ay yére defar leen ba ñu rafet mooy ñun li ñuy def fi fekk ñun xamuñu lu bari lu ñuy def ci jikko yahudi ak nasaraan yi lañ ko jëlee fekk dañuy toppandoo rek di toppandoo rek di roy di roy ba roy musiba foofu la ak mbon yem mbokk jullit yi yowmu asura fukkeel ak ñett dalilun ala tanaqud fi xayaati alyahud wa nasara haysu kaanu yaxrisuuna ala siyaami asura wa hum laysu bi wa wa huwa laysa bi waajib nee na bokk na ci li ñuy jàng ci asura mooy contrainte yahud yi li ñuy dund ci seen diine contraire la ak li am ñoom yàlla rëccal na leen bisu tamxarit rek xaaruñu sax yàlla wax leen def leen dara dañoo xëy rek daal di woor te diine li ciy cosaan mooy nga am ndigal te defal nangam même su fekkee dañ la ko sant dañ la ko war a sant mu baax xaaral ba nga am ci ndigal ndigal yi nag kan moo koy joxe yàlla tabaraka wa taala dafa nekk yoon ci lislaam nekkul ne yow sa xel lu mu rafetlu rek nga daal di koy def gis nga loolu bañ ko tàmbalee dugal ci diine lu rafet rek nga def lu rafet rek nga def fi mu nekk ni diine ji amatul fu mu tënku lu rafet ci yow rek nga def da ngay gis xëy suba benn waaye ne la suba de am naa tudd na ngeen teel a ñëw parce que damaa bëgg balaa ñuy tudd ñu wàcceel ma kaamil waaw kenn du musique dañuy wàcce kaamil waa ji li mu wax rafet na de waaye du diine du sunna est-ce que yonent sala salaam bu daan tudd day wàcce kaamil est-ce que Aboubacar bu daan tudd day wàcce kaamil ñu nag Aboubacar ak yonent bi kan moo gën a xam barkeelu alxuraan ah ñoom ñoo ñu ko gën a xam lu tax ñoom defuñu ko woon parce que du diine diine da ngay xaar ba nga bañ ne la defal nga def mais doo ñëw rek yor say xalaati bopp lu rafet ci yow rek lu sa xel nangu rek nga daal dem indi say nit wala nga daal dem sa bopp yow nga daal di lal sa sijaada commencé koo def déedéet su nekk nii julli gee ñaata rakka la ñeent su benn waaye ne damay julli juróom-ñett allahu akbar yu gudd waa ji ñëw julli juróom-ñett julli na de li mu def baax na de mais sa am na gee amul gee xam nga lu tax parce que lim def kenn sant ko ko ñeenti rakka lañ ko wax moom nag mu bëgg ci xelam bu soobee yàlla day ñeenti juróom-ñetti rakka laay julli rakka bu njëkk bi danaa jàng baxara allahu akbar yaakaar naa ne dinaa jàng ala imran di di di kii di coono yaram buy métti la ci jëlee parce que du am tiyaaba parce que yàlla sant ko mu julli gee juróom-ñetti rakk loolu moo tax diine ji dafa am fu mu tënku nekkul lu rafet ci sa xel lu rafet ci sa bopp nga daal di koy def déedéet ñetti nit yonent bi dafa jàngale mu leer fa la ñuy jeexale incha allah beneen da beneen jour yi ñëw ñu mottali yeneen tomb yi des ñetti ñooñu lan lañ def kenn ki ne man dootuma takk jabar kenn ki ne man dootuma lekk bëccëg kenn di ma ne dootuma nelaw guddi ñett ñi ñëpp fuñ ko teg ci jaamu yàlla dootuma lekk bëccëg damay woor ndax jaamu yàlla kenn ki ne dootuma jege jigéen ndax jaamu yàlla kenn ki ne dootuma nelaw guddi ndax jaamu yàlla damay julli ba bët set ñooñu li mu wax baax na wala baaxul tey jii ci ñun bi ko doon def xalifa général ngay nekk ñii ñu ne kii kii de amul jabar kii du nelaw guddi kii day woor rek léegi nga gis gars yi commencé la siyaas parce que li ñu wax baax na. waaye xoolal yonent bi mu déggee loolu dafa ñëw ba ci ñoom woo leen ñu ñëw mu ne yéen a wax li ñu ne waaw yonent bi ne leen li ma indi ku ci d'accord bokkoo ci man. point li ma indi man yonent ku ci d'accord bokkoo ak man man de maa leen gën a ragal yàlla damay takk ay soxna damay nelaw guddi damay woor di dopp man raxiba an sunnati fa laysa minni li ma indi nag ku ci d'accord bokkoo ak man pourtant li ñu wax rafet na de waaye yaa ngi dem ne bokku leen ak man ndax yàlla yónniwu ma ndax loolu kon ndeke diine du du suñu xel lu mu rafet lu rek ñu daal di koy def ixwaan yi kon incha allah gee jot na ñu daal di yem foofu ba incha allah bés yi di ñëwaat ñu daal di koy eggale kon